consacré sa journée par des visites euh, qui l'ont conduit justement à Tamba, Koungheul et Koumpentoum. Salaamaaleykum mbokk Tambacounda. Quand je parle de Tambacounda, je parle également de l'Est de façon générale en y incluant Kédougou. zone bi ngeen nekk dafa doon une zone riche au sous-sol, moo tax dans cette région pour que activité économique mën fi am doole bëgg nañ fi créer un port sec maanaam port bi nga xam dañ ko fiy def bu ko defee yenn marchandises yi débarqué au niveau du port de Dakar ñu mën ko indi ci port bi nekk ci région de Tambacounda nga xam ni à partir d'ici la koy yenn pays di jël see seen marchandise pour mën a dundal économie région bi loolu day yóbbu régler xëy mi day yóbbu dundal zone bi beneen enjeu majeur bi nga xam ni l'insécurité parce que zone yi ñu nekk ay zone frontalière la quand on parle de la région de Tambacounda et de la région de Kédougou et il faut que ñu renforcer la sécurité beneen mbir bu ñu soxal ñëpp xam nañu est bi zone minière et il faudrait que la fay génn mën a jariñ population yi et il faut aussi ñu gën leen rappeler leur responsabilité sociétale et environnementale man dama ni sama campagne du ma ko yemale Dakar Sénégal 46 départements la Sénégal c'est le nord c'est l'est c'est le sud le Sénégal c'est l'ouest mais c'est également le centre xam naa ni Tambacounda a dit oui au changement Tambacounda a dit oui un avancement qualitatif, à un avancement vers le progrès, à un avancement pour